fit de mbëggeel bi gën a wóor fromage l'écran moo leen doon may RFM matin RFM matin RFM matin émission bi Sénégal jàngeen jëf mbokk yi gannaaw bu 8h jotee ba te tegal ñu dalal Seydou Nourou Ba ci xabaar yi ci wolof ci gàttal Seydou salaamaaleykum waaleykum salaam Babacar Fall mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bismila ci xibaar yi gën na cee fës assemblée nationale tey la ñu convoqué député yi bu ñeent waxtu jotee euh, ca séance plénière ngir nag ñu saytu luwaa bu jëm ci finance rectificative dina projet boo xam ne dina ko taxawu Abdoulaye Daouda Diallo ministre des des finances ak budget njombe naxoon na am foofu ca Ourossogui ndax fukki agent ak ñaar ñee liggéey ca mairie nag ñoom ñoo bëggoon taal seen i bopp sotteeku essence ndax dañ leen a licencié nan la yëf yi demee leexal ci biir xibaar yi ñu ne foofu ca Matam di Ali Bandel Niang yëf yi neexatul diggante Karim Wade ak Cheikh Dieng secrétaire général national PDS mu ñu dénk lépp luy élection waral nag ba jamono jile PDS yëf yi dal dina bëri coow lool ñoom ñaan dal di Karim Wade ak Cheikh Dieng dañu mënul déggoo ci ban plan la ñu war a nas jëm ci élection yi ñu waajal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko dossier euh, ndax masseuse di keneen di ay sataba di liggéey kii di aji Sarr moo it niki démb la doyen des juges Omar Maham jàll déglu na ko naka noonu moom it doyen des juges dégluwaat Sidi Ahmed Mbaye mi mu booleeg euh, borom këru Ndeye Khady Ndiaye euh, di borom suite euh, boote ñaal pàcc xibaar tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne yéen kay Modou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou Thiam Yacine Pi moo fexe ci digital bi asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM séance plénière ci ajjuma ji foofu ci assemblée nationale tey ci ngoon bu ñeent waxtu lay doon ñu na convoqué ñu daal di convoqué foofee député yi ngir ñu examiner maanaam saytu loi finance rectificative dina projet boo xam ne euh, kii di Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finance ak budget dina ko taxaw ñu waxtaane leneen di pétrole fii ci Sénégal nag mën na dimbali ñu daal di dal Euh, fexe ba euh, loraange ba am ca guerre ca Ukraine mu daal di ñëw indi ci ay saafara di ay kàddu directeur général Woodside dina ko entreprise boo xam ne mu nga bawoo ca Australie nangu na ne nag euh, Sangomar dafay gën a attirer ci wàllu woowe gannaaw ba conflit bi tàmbali bu foofee ca Ukraine Woodside nag dafa sam dafa sax dem lëkkaloo ak koo xam ne moom moo ëpp doole ci wàllu woowee ci wàllu pétrole ak mine BHP lay wuyoo léeg ma kumba béy pétrole ba ca Sangomar 2023 la war a commencé génn te mën naa doon pexe ci pétrole bi manqué ci àddina ndax pétrole russe bi nga xam ne nii dañ cee teg ay sanctions gannaaw bi Vladimir Poutine seen président waxee ni day song Ukraine loolu ki ko wax mooy directrice générale bu Woodside mu ni lii tax muy gën yomb nag mooy Sangomar liñ fiy xaar ci pétrole moom ak la ñuy gase ca Ural ci Russie ñoo yem ñoo nuroo kon ñi ko daan raffiner dinañ mën a raffiner pétrole biy jóge foofu ci Sangomar mu dolli ci ni àddina bi fi mu ne nii ñoo yàkkamte ay pexe ci nu mu gën a gaawee ngir passé li Russie daan indi ci pétrole te lool nag sangomaar mën na ko ñoom waa Woodside weeru juillet wala passé lañ waxoon ni seen projet bi ci Sangomar di 4,6 milliards de dollars 82 pour cent yi dañ ko bëggoon a jaay waaye bañ ko waxee toog nañ lu yàgg loo xamante ne nii yënguwul woon bu baax a baax waaye nee nañ bi guerre bi tàmbaleek léegi am na ñu leen tàmbalee seet bëgg a jënd loolu ñuy jaay loolu ki ko wax mooy Meg O'Neill di directrice générale bu Woodside ci Reuters Woodside Petroleum léegi Woodside Energy la ndax dañoo jël kër gi boole ko ak bànqaas bi nga xam ne moo yor pétrole ak gaz ci entreprise bi nga xam ni bu dee gas wàllu min moom moo jiitu ci àdduna di BHP loolu jar ñeent fukki milliards ci xaalisu Amérique BHP war ci am 48 pour cent ci action yi société bu bees bi ñuy defar loolu itam day tax mu bokk ci fukki société ci àdduna bi nga xamante ni ñoo ëpp doole ci wàllu gasum pétrole. Makumba Bey organisation Nations Unies nag taxaw lépp lu jëm ci euh, dundin ak euh, mbay di FAO jox na ay soxna foofa ca jonwaar ay fuur yu méngoo ak jamono. FAO nag euh, li mu bëgg mooy fexe daal ba soxna yi foofee gën a ci wàllu woowee ndax anam. yi ñu doon liggéeye baaxul dara ci seen wér-gu-yaram ministre bu yor napp mi ak économie maritime nag ak kii représenté FAO fi Sénégal nag nit ki démb lañ doon inauguré plateforme boobee euh, di yëngu ci wàllu soppi euh, ak yeneen foofe ca Dionewar taxaw nag gina dimbali soxna yi foofee ci bu ñu liggéeyee pare ñu mën a jaay ba biti réew Aminata gu jabi moo ñu koy leexal lu tolloo ko juróom benn téeméeri jigéen yu dëkkee foofee ci commune bu Dionewar dañuy yëngatu ci soppi lépp lu jóge ci géej gi rawatina lakkum jën waaye nag ci ay jafe-jafe yu métti lañ daan liggéeyee ndax ñàkk ay équipement yu war moo tax nag organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture di FAO ñëw jàppale leen indi leen ay four yu mucc ayib yoo xam ne day tax ñuy liggéey te am benn jafe-jafe Robert Guantanu moom moo toogal FAO ci Sénégal. la capacité. fuur yi mën naa lakk lu ëpp ñaar fukki tonnes jën weer wu jot xaalis bi ñu jëndee fuur yi nag mën nañu ne toll na ci juróom fukki millions de francs CFA ñetti fuur la. jigéen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee ci jonwaar fi mu ne daañu liggéey te duñu am benn jafe-jafe ci seen wàllu wér yaram te itam li ñu daan am ci wàllu koppar dana gën a yokk. dañuy dem di taal matt mi muy saxaar ci suñ kaw am na ñoo xam ne saxaar jibu leen buñ saxaaree mën na leen yóbbu feebar kon nag defuñu lu dul sant ndax ah, dinañ ci am wér gu yaram dinañ ci am noppalu te dinañ ci am qualité. plateforme bi ñuy woowee FTT te FAO di ko déroulé li ñu bëgg rek mooy gën a yeesal liggéeyu lakk jën na ci jonwaar na dina tax ba produit yi nga xam ne moom mooy jóge foofu ñuy gën di ko jaayee fu sori Aliou Ndoye ministre de la pêche et de l' économie maritime. pour FTT nag Sénégal lañ ko testé. pour FAO caaro yi moom moom la ñu woowee pour FTT gis ni système bi mooy may jigéen ñi ci liggéey ñu aar seen wér bi ñu am valeur ci wàllu économie dana mën a dem fépp ci àdduna loolu nag dana dimbali jigéen ñi ci seen koom ay jigéen nag ñu jóge ko d'Ivoire ñëw nañu ngir former jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee foofee ci Dionewar ci nit ñuy jëfandikoo fuur yooyu te du am benn jafe-jafe Aminata Goudiaby Fatick RFM pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu ngi ko doon wax ci bopp xibaar yi fukki agent ak ñaar ya di ya liggéey ca mairie bu Wourossogui gën a dañ leen a daal di dàq. ñu sax joxante woon rendez-vous ca buntu hôtel ba ngir sotteeku essence tal seeni bopp euh, ñoom nag euh, mujj ñu am li ñu bëggoon gannaaw ganaaw ba ñu sasiré préfet préfet bu Matam ngir daal naqarlu li ñu wax règlement de compte la seen diggante ak maire bi di Moussa Boucar Camali Bandel Niang ñu toll ci fukki agent ak ñaar yi ñu mën a jàppee nii dàq nañ leen mairie bu Ourossogui ñoom nag ñu jàppee dàq boobu bu injustifié tey itam jàpp ñu jàpp ni jaarul yoon ba ñuy tëkku ni bu leen bu ñu leen delluwaatul ci seen ay sañ-sañ maanaam seen ay droit dañuy ñëw ba ci buntu hôtel de ville bu Ourossogui xëppoo essence taal seen bopp ndax nag jàpp nañu mooy mennum pexe wi ni Moussa Bocar Thiam yore dëkk Ourossogui boobu ba tey. mun ko amu man Amadou Diallo laa président de la République maire de commune de Ourossogui di ñu licencié si licenciement boo xam ne ennemi politique kese la démb dem nañu saisir inspection travail deful réalisation dem nañu préfet lii depuis dakk borom kër ñun ay borom kër lañu am nañu def trente ci service bi ñu ngi fii mu xëy benn bis yàq seen liggéey dakk leen ñu ne nag ñun de la République def ay mouvement politique am ñi koy topp ginnaawam nag ñooñu lay wutal place fu mu nekk nii defar na ay contrat lu dul jeex pour ñooñu remplacer ñu loolu nag diñ ko bëgg xamal président de la République lii ne désormais na jeek ci commune de Ourossogui ñun pare nañu bu dee réew mi amul loi simple maire day toog fii di def lu ko président du wax ministre du wax bëgguñu dund ci réew boobu pare nañu dee subu inshallah dix heures diñ leen de l'État jëm nañoo jëm ngir jokk moom ami xalaatam waaye antogut waaye mu war a kon taxaw ci dossier bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane fu ne ci biir dëkk bu Rosso gi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM. des ba tey ci mairie yi wutali cees foofee nag mairie ba dina saisir justice ngir daal naqarlu euh, yàq ba amoon li mu wax ca mairie ba waaye tamit niñ doon gérer fi dara baaxu ci docteur Babacar Diop nag di naqarlu liñ doon jël ñenn ñi foofe di liggéey te amuñu foon benn njaxiñ bu weex deebe ñu dem ñu fay leen ay koppar reportage Cheikh Anta ñetti weer la am bi ñu ko faleeg léegi mu nekk ci bopp maire bu Thiès docteur Babacar jóob di indi leeral ginnaaw bi mu càmbaree lëj mbët la mu fekk ci maire bu cees bi ma ñëwee dama def lu ëpp boobu ba léegi may jàngat dëkk bi musuma woon a jàpp ni yàqu-yàqu yi ak seen niveau bi dinaa waxtaan ak yéen ci personnelu ville bu Thiès ndax askanu Thiès dafa war a xam boobu ba personnel boobu mi ngi toll woon ci 58 2019 laataa 2020 bi di jeex ñu yóbbu ko ci 78 employés ci 2020 ak 2021 mu jóge ci 78 employés permanents ci 31 décembre 2021 mu dem ci 116 employés permanents masse salariale bi jóge ci 187 millions dem ci 230 millions 939 mille 777 francs li xoj Cees mooy masse salariale boobu liggéey bi li koy doxal dëgg-dëgg soo ko jëlee génnul lu mat vingt personnes ça veut dire quoi de manière plus concrète des gens payés à ne rien faire loolu li ko waral mooy mairie Sénégal tradition bi mooy clientélisme politique. maire Thiès bu yees bi de nee na xar kalamu Thiès la bëgg a soppi. tey li mu fi gis de lu doy waar la ndaxte société yu bari nga xamante ni ñu ngi fii ci biir dëkk bi contrat yi nga xamante ne moom la ñu xaatimoon ak maire bi war koo fay ci koppar contrat yooyu nee na dañ koy négocier waat ndaxte entreprise yooyu de lu ñuy dugal lu néew la. ay société yoo xamante ne ay milliards la ñuy def chiffre d'affaires lañu ko luye ñu toog ci. barab yooyu dinaa leen ci jukkil yenn bi ci jiitu mooy Sonatel EMG depuis 2014 mi ngi occupé 1435 mètres carrés Mbaye Gueye EMG mosuñu fay un franc yóbbante nañ ci ñu fay li ñu amal Thiès parce que huit ans yooyu dañ koy fay mënta ñàkk. maire Thiès nag nee na door na xeex bi lu mu ci góobee dina ko gar ndaxte daa bëgg nag yorin bu bees ñu bëri nag di laaj. ndax lii dina ko àggaleem déet RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ki nga xam ne moo nekkoon mooy conseil politique euh, bu ka fa nekkoon maire di Talla Sylla Ousmane Diop jot na ci àdduna ay kàddu la yoo xam ne tegul ci yoon teguwul fent sax ay kàddu yu garaaw garaaw la. docteur Babacar Diop dafa rek yëkkati ay kàddu wax ngir daal ñu gën ko xam ci coalition Yewwi Askan Wi ndax mënul fexe ba am pa place am rawatina sax élection yi ñuy waajal di élection législative fanweer fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dégmal Ousmane Diop nag ne faw Babacar Diop xippi ay bëtam xool li nga xam ne kam fa wuute def na ko ci wàllu liggéey jo ma xoon moo tax ne kàddoom bu fekkee ne da ngaa war a woo ñëpp man ci loolu laa demee en tant que Thiessois e, ma dem bi ma demee bi mu ne lii la fi fekk li mu fi wane tey leen rek la mooy wax attaqué ki nga xamante ne nii ab fournisseur la wax ni léeg lii la ko jox ci ay marché defu ko waaye may wax ni nit na boo jógee da wax ni lii nga fi fekk man yaakaar noo ne waroon ngaa wax ni def nañ fi lii ci lu baax ndaxte juróom-ñaari at bay dugg ci juróom-ñetti at bu am meer nekkee ci ab dëkk def fa euh, mbas mi ñëw mu taxaw waa dëkk ba def waa ñu daara ñu jóge ci loolu mu defar li nga xam ne mooy ay tali euh, ànd ko ak euh, le gouvernement président de la république jàppale ko ci mu defar fa taal lamp ya donc nga xam ne Thiès leer na taali lamp ya leer na mbedd yi jub na ndax jaare lañ fa tali nga ñëw mu defar fa kër xale yi donc kër xale yi euh, projet bi ko financé mooy AGETIP nga ñëw ci euh, kër euh, kër mag ñi foo xam fi lay mag ñi fajoo muy hôpital boo xamante ni ay millions la ki ko defar mooy Sonatel kon boo jógee ñëw yuuxu Sonatel daal ni Sonatel fayu fi dara ci dëkk bi war na noo fayal trente million ki deux millions six millions lay fay Sonatel ñëw jox la lu ëpp cent millions fa defal la ko ngir mag ñi faju yow boo dee am maire boo leen jaaraamatul waroo jóg di leen topp ay fukki dërëm juróom-ñaar fukk contexte bi ñu nekk nag mu ko waxee mooy contexte politique parce que bu dee contexte politique la boo jógee dem ci benn investiture yow nga bokk yeew yi yeewi yeeweeku woo Ousmane Sonko yeew la yeewu la léegi nag yow fam la yeew fam la taxe nga bëgg a yeeweeku daal di na carte bi daal ne xaaral ma yuuxu pour exister mm. parce que su fekkee ne ñoom investiruñ ko loolu xamul lu muy def parce que yeew yi dañ koo yeew boog mu bëgg a yeeweeku mu bëgg a jaar ci contexte bi pour attaquer les alliés de de Benno Bokk Yaakaar. poccoxoo ca parti démocratique sénégalais ñàkk déggoo bu tar diggante Karim Wade ak kii di secrétaire euh, général national bi ñu lépp luy élection foofee di Cheikh Dieng ñoom ñaar nag daanaka ñu fexe ba déggoo ji ban plan la ñu war a nas euh, ngir waajal élection yi ñuy dégmal Cheikh Dieng nag dafa daal jàpp ne faw kii di Karim Wade ñibbisi ci réew mi ngir mu jiite campagne électorale bi euh, lu ko mooy nag PDS moom doon doomu Abdoulaye Wade bi nag ne mënu koo dégg leexalik ndongo ka suñu ndaw foofu ca Pikine secrétaire général national bu yor wàllu élection yi ca parti démocratique sénégalais ni jot na nag Karim Wade daal dee xam li ko war mu daal di koy def moo di mu daal takk fitam daal ñibbisi jiite nag campagne électorale bi aju nag ci wàllu élection gu yi Cheikh Dieng ni lu ni mel moo mën a tax nag parti bi dese nag ndëgër laayam ndax seetlu nañ ni ak léegi di ndërmeelu moo tax ma ñaari ñoo ñu tax dellu ginnaaw bu njëkk bi mooy sa la nga toog dowaa te kenn jiituwul parti bi Sénégal kon il faut tey élection législative yii ñu jëm nga jël say responsabilité mën a ñëw jiite campagne électorale bi lu may loolu lu yées li ñu daloon ci élection locale yi dinañu dalaat 2012 ba léegi parti bi dafay deltu ginnaaw moom li mu yaakaar ni ñuy def ay marche créer situation insurrectionnelle boo xam ne day tax Macky Sall ni na réviser procès bi loolu ma ne ko parti Cheikh Dieng ni amatul maslaa nag ak doomi Ablaye Wade ji faaw des koy wax nag lu yenn maanaa ndax lenn ci ay dogal yu muy jël nag ñoom ànduñu ci bu ci mel ni bi tere nag Cheikh Dieng nekk tête de liste majoritaire ci Pikine moom Cheikh Dieng jàpp ni lépp nag Karim ci fayantoo a ko teg. ndax boo nee damaa bëgg a gañe nga jël Pikine Cheikh Dieng ba ko jiite woon am 46000 voix nga teg ko fële ndax d'accord ak man. Cheikh Dieng yi la élection am solo loolu ci seen parti ndax résultat yi mooy wane lan mooy ëllëgu PDS ci géewu politique bu senegaal dañ xool liste nationale bi fukk yu ko jiite wax dëgg yàlla kan moo ca mën a gañe département ku bëgg a gañe jël ñi mën a nga jiital leen ñu dem combat gañe. naam ñàkk déggoo am na nag ci lenn ci ay dogalinu yu daal dee jël waaye Cheikh Dieng bëgg nag ni képp ku meroon daal dee giif ngir fexe bu nu àggee ci élection yi ñu daal di ci mën a jëlee ndam ndongo ka rajo Futur Media. Pikine fukk simili ak ci juróom-ñetti bu ne lu mu néew néew fii ci ndakaaru joxam ñett ñett téeméeri camion dañu jaar ci autoroute à péage bi yëpp nag ay. Eh, bàkkaar wala ay ah, yoo xam ne dafa bëri tooke mu ngi nag lu doy waar ci autoroute bi ay accident nag mën naa ñëw saa su ne ci yooyu les bagages yoo xam ne dafa daal di bëri tooke waral nag ba ni ko démb opération simulation ñii di waa Eiffage dañ ko amal ak ñii di sapeur pompier yi police ak gendarmerie leeral yeeg Abdou Diouf Diagne. ci autoroute à péage bi booy génn Sébikotane benn camion boo xam ne nag dafa sëfoon essence daal di daanu accident boobi nag daal di laal ñetti oto ñetti nit daal di ci am ay gaañu gaañu waa sapeur pompier nag di fay lakk gi nga xam ne commencé na di fa am te di raxas foofu nga xam ne essence bi dafa tuuru ngir mu bañ a am ay jeexantal nag ci environnement bi fu ko soriwul dara nag waa gendarmerie nationale di pousse ay nit ñoo xam ne ñu ngi yor di jéem a ñëw di xam ne dafa tuuru lii nag du dëgg waa EFAS nag ñoo ko xalaat ngir xeetu accident xam naka la ñu koy saafara Amadou Thiam. communication bi pour euh, ñi nga xamante ne ñooy utiliser autoroute bi ñu mën a xam lan moo xew. ak ban itinéraire la ñu a jël pour seen dem ak dikk mën a continuer parce que événement bu ñu mel bu xewee autoroute bi dañ koy dagg donc autoroute bu daggee il faut ñu expliquer nit ñi fan la ñu war a mën a jaar loolu nag rôle préfet la loolu rôle gouverneur la ñoom ñoo koy def mais ñun dañ leen ciy jàppale pour ci signalisation bi ñu mën a guider euh, clients yi. sapeur pompier yi ay jafe-jafe yu tar nag la ñu am daataa ñoo agsi si bërëb bi nga xam ne fa la accident bi am lii nga xam moom la ñu duppee bande d'arrêt d'urgence dañoo gis ne dawalkat yu bëri dañu say jaar lu ñu capitaine Djibril Sall. yoon boobu dañu ne nit ku am jafe-jafe moo fay gaare wa ilaa oto yi nga xamante ne ñooy oto secours kese ñoo fa war a jàll waaye tey gis nañ ne nit ñi yéeg nañ si donc ñuy ñaaxaat population bi ñuy bàyyi xel si band boobu ndax bañ a yéeg si bande boobu mën nañu permettre ñu sauver ay vies yu bëri. si booba jamono nak kii nga xam ne mooy sous préfet bu arrondissement bu Diamniadio daal di amal yi nga xam ne moom la ñu duppee ab de crise ñi nga xam ne nag ñoom ñëpp ñoo war a jóg ngir xeeti jiyee yooyu boo amee ci kaw tali bi ñu mën koo saafara fekke woon nañu ndaje moomee léegi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. ministre bu ñu dénk lépp lu désenclavement ak infrastructure nag moom teg na dem xeer wu njëkk ngi ñu tàmbali liggéey bi dafa tëli yi nga xam moom moo lëkkale région yi ci Sénégal di loo xam ne daanaka xeex yu yàgg ndax am na. juróom-ñett fukki at ak ñett yàgg na lool mu nag mel ni saafara mu ngi ci tàmbalee am gox yi di Thiès ak Diourbel nag fii ak fukki weer ak juróom-ñett dinañu noy bu baax a baax Babacar ju moo ñu koy leeral. benn kàddu rek lan amoon ci seen gémmiñ jaajëf président de la république dafa nag sekki dégg boo xam ne nii daloon jamono lu yàgg Ibrahima Khalil Fall. moo di député maire bu Kër Samba Kane. suñuy nuyoo ak suñuy sant ak suñuy ngërëm. ci monsieur le président de la république ci lii nga xam ni nekkoon na doléance boo xam ni jiitu suna sunu dund sunu juddu tey jii yàlla dogal ñu daje fii ci Baba Garage pour teg première pierre pierre bi yoon wii ni mu meloon bon taxoon na ñu bëri yëkkati woon ci seen kàddu ñu bëri sax foogoon ne duñ ko mos a fekke Modou Sane Ndiaye maire bu Baba Garage dama ne bis bi tey wecc na junni junni bis yoo xam tiis la woon parce que danoo demoon ba foog ni ñun bokkul ci Sénégal bala nga war a mën a xam nga jógee Touba boo nee cëpp sa xol jeex nga am looy daj boo jógee Bambey boo nee cëpp sa xol jeex nga am looy daj boo jógee Ngaay boo nee cëpp sa xol jeex nga am loo doon daj jàngoro la woon ci Kajoor ak Bawol ñu amoon am lu liggéey bii nga xam ne moo jëm ci yoonu Bambey Baba garage bi dina tax dëkk yu bëri jokkalante seeni koom Mansour fay ministre des infrastructures et du désenclavement. te yoon économique la. yoon la boo xam ni non seulement dana gën a développer gox bi. waaye dana faciliter maanaam jënd beeg njaay bi. fële ca géej ga ci Fass ak fële ca Sine. tegub xeer wi weesu na li askan wi di xaar mooy tàmbali liggéey bi ñuulal tali bi nit ñi dox seen yitte bombe yi. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko du yàgg nag dossier bi daal di mat ndax masseuse bii di ay Aïssata Ba doon liggéey ak kii di Adji Sarr doyen des juges di Oumar Maham Diallo jot na ko déglu naka noonu la dégloo si di Ahmed Mbaye mi booleeg euh, borom këru Ndeye Khady Ndiaye di borom suite beauté. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ba. wàllu football ci senior yi Casa Sport bu Ziguinchor mi nga xamante ni moom moo di équipe championne en titre dana continuer di défendre li nga xamante ni daal moo di titre ndax moom démb dal na qualifié ci wàllu quart de finale gannaaw bu mu daanee ñi nga xam ne ñoo di waa Wali daan bu Thiès benn bal la ci dara bit bi nag ko dugal moo di Abdoulaye Gassama 35e minute de jeu gannaaw ba match bi jeexee kii di Ansou Diadiou dal dina moom mooy tàggat équipe bi di waaw d' abord ni ma koy jàngatee rek di wax ni comme ni ñu ko waxee match coupe te match coupe waxoon nañ ko ni lu ci am solo mooy boo demee ba muy jeex yow nga jàll parce que match coupe dafay jeex sur place donc tey ñun jàll nañu qualifié nañu pour dem jouer quart de finale donc ñun ciy sant yàlla di gërëm euh, di wax di courage xale yi parce que euh, li des tamit mooy gën a métti parce que plus ngay avancé ci compétition bi plus ngay jox yaakaar ñi nga xam ne ñu ngi sa ginnaaw te yaakaar boobu war ñu ko tas ba tax tey fu mu nekk li leen di wax rek mooy continuer garder la tête sur les épaules ñu dem ñefee match yi benn par benn ñu xool la lañ ci war a mën a am parce que am nañu yaakaar. waaw d' abord ci loolu ñu ngi ciy sant administration Casa Sport yi parce que jël nañu xale yi euh, regroupé leen nga xam ne ku nekk da nga xam fi nga nekk ku nekk da nga xam ne mu ngi récupéré. ba pare ñu jëlee disposition pour voyage yi des parce que waxuñu voyage suba bi rek mais dañu voyage yi des ak nu mu munti demee par avion lañ koy demee ñu mun a am récupération. ci lu jëm ci yeneen i jongante ñeel ba tey lii di euh, huitième de finale coupe du Sénégal niki démb ñàmbur bu Louga moom dafa daal di toog ñaka daan nag moo di waa Port benn bal ci dara jambar bu Saly moom itam mujj naa jàll gannaaw tiro but 2 à 1 ci diggante ak Rail bu Thiès gannaaw temps réglementaire bi un but partout lañ defoon université bu Saint-Louis moom daa mujj ñàkk ci diggante ak Teungueth FC ñetti bal ci dara Étoile Lusitana moom moo daal di éliminé ñi di waa Oslo tirage bi nag euh, ci li jëm ci wàllu quart de finale gi danañ ko amal niki tey ji euh, ci suba gi ñu daldi wax ba tey ci wàllu football ak li nga xamante ni moo di euh, finale coupe confédération ci wàllu euh, football la ba tey fii nii ci Afrique yëf yi nag ni tey jii dañu koy daal di amal di euh, finale bi danañ ko daal di amal foofu la ci Nigéria finale googu la nag diggante renaissance sportive bu Berkane bu Maroc lay daal di doon ak ñi diwaa waa Orlando Pirates. te équipe bu Afrique du Sud ñu daal di wax ba tey ci wàllu football waaye bii la yoon ca Angleterre ak seen championnat démb nag dañu doon dabe ñetti jongante moo dal di amoon Chelsea bu Edouard Mendy nekkoon ci camp yi ak Leicester bu Nampalys Mendy nekkoon tamit ci terrain bi dañoo mujj match nul un but euh, partout geneen na jongante ba tey di match retard diggante Everton ak Crystal Palace ñetti bal ci ñaar la ko Everton dal di daan Everton nag dal dina réussir li nga xam ne daal moo di maintien bi maanaam du wàcc ci championship mooy euh, deuxième division foofu la ci Angleterre Aston Villa ak Burnley ñoom itam démb dañ doon dabe. dañoo dal di match nul un but euh, partout ni ki dimanche nag incha allah la ñoo fas yéene jeexal li nga xam ne moo di championnat bu Angleterre dóor beeg dàq bi di wéy ba tey ci diggante Manchester City féetee ci place bu njëkk bi ak Liverpool féetee si ñaareelu place bi benn poñ moo daal di dox nag seen euh, diggante ni ki dimanche bu 15h jotee ci dañuy daal di door match yëpp ñii di waa Manchester City danañ daal di tase ak ñii di waa Aston Villa. Liverpool moom dana tasekk ak ñii di waa Wolverhampton pour loolu weesoo ñu daal di waxtaane wàllu basketball ak lii di installation ligue régionale bu basket bu Diourbel yëf yi nag ma nga doon am ni ki démb waaye jàppaleen ni euh, bëri woon na xët-xët ndax xëccoo bi nga xamante ne am na si ñaari pàcc yi nga xamante ni daal ku ci nekk bëggoon nga yan mbir yi nañ si ànd ak soxna Alimatu Sarr mu tàngoon lool xeexoo am ci ñi ànd ak président bu ligue basket bu yees bi ak ñu faloon fan yi lañu génn région yëpp am fula ba May Seck di wax ne moom mooy président bi ba tax muy ñaawlu rek ak lobby bu mu ne moo ci am dañoo installé ñun ba pare te l'inspecteur régional qui a installé le nouveau bureau de la ligue régionale le huit lañ ñu lojo est là jël seen whatsapp ñu envoyé ko ñaa ñaa le secrétaire général de la fédération sénégalaise de basket moo wax Jeylaani Kebe ne ko May arrangé wuñu parce que CRBS la bokk bile installation force de di koy dakkal bërëb ba ko Ababacar Ndiaye ca mujjanteel ba ñu daal di koy installé maître Babacar Ndiaye président fédération sénégalaise bu basketball moo ko amal. installé le président Babacar Ndiaye. dans ses fonctions. moom Ababacar Ndiaye di woo rek mbokki basketteur yi fii ci njaareem ñu ñëw rek suqali basket bi. essentiel bi mooy nañ jàppale xale yi ñu suqali ko jëm ca kanam fi ñuy déggee Thiès di fa dégg Dakar di fa dégg Saint-Louis war nañ fa mën a dégg Diourbel parce que on a des potentiels yoo xam ne war donc loolu noonu yëpp mënul am sans pour autant que famille bi ñu regroupé wu nekk benn. Mamadou Sy chargé des ligues di wax ne lii di discipline daañu ko amal fii. il ne peut pas y avoir deux présidents de but dans une région. impôts, c'est prévu par nos ca mujjanteel ga fukk ak ñaari ballon daal di nañ koy jox juróom benn club yu nekk fii ci biir njaareem ki ko amal di fédération nationale bu basketball Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média. soxna Alimatou Sarr wàllum pays la ñu koy dal di jeexale ak huitième édition championnat d'Afrique bu zone 2 Ndakaaru fii nag lañu koy dal di amal. lu tolloog ñaar fukki réew bawoo ci Afrique sowu jant ak Afrique du centre dañu daal di teewee yooyu la jogante ka door ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai fas yéene ko jeexal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba tey ci weeru mai bi ñu daal di ne yëf yi nag danañ ko amal euh, ca piscine olympique niki démb comité d'organisation bi sax mu ngi doon amal jeno ak journaliste yi euh, ngir waxtaane lu ni mel kon fi Seydou fii lañ koy daal di yemale xibaar tàggat jaajëf Cheikh Tidiane Diagne dañ ci ànd Fama Dione ngi leen di nuyu yéen ñiy taamu rajo Futur Media artiste bi bàyyeekoo Éthiopie Tegene Kumbi Sebeto moo wuutu Layla Adjovi ci classement grand prix Léopold Sédar Senghor juróom-ñaari prix la ñu distribué ci grand théâtre bi ñuy amal cérémonie ouverture bu fukk ak ñeenteelu édition biennale art africain contemporain président Macky Sall moo ko jiite woon moom nag waxaan na mébétam taxawal ab écosystème boo xamante ni gën a ba économie créative bi daal di fës ci Dakar bu daaw bi nag lu ëpp 8 milliards ci suñuy koppar def nañ ko ci transaction ci œuvre d'art Anna ak rythme tama yi doom ak sëtu dem ci yàlla Doudou Ndiaye Coumba Rose la ñu door Dakar 2022 bile bu dee ñenn ñi dañoo jàpp ne dañoo war a privatiser biennaalu Dakar bi nga xam ne moo gën a yàgg ci Afrique ki jiite jamono yi comité d'orientation xew-xew bi nee na état bi warul génne loxoom ci événement bile maître Moustapha Ndiaye. Je fais partie de ceux qui pensent. yaakaar naa ni nguur gi waruñoo dellu gannaaw ci biennale bi ndax nag événement la boo xam ne dafay contribuer bu baax a baax ci créativité rawatina ci déndu Afrique nu gën a ubbeekoo ci àdduna bi moo tax mu nekk li moo xam si dañ ko war a gën a njiitu réew mi nee na moom ci loolu la bëgg a woy loole waral Macky Sall daal di annoncé ne dinañ def seen kent lay kattan def ay aménagement ba entreprise nationale yi mën a gën a dugal seeni loxo ci financement. projet culturel yi ci Sénégal. taxawaayu artistes yi ak lépp loo jëm ci seen wàllu financement ngir nag gën a ñoŋal li nga xam si moo di caada ji loolu moo tax ba dinañ def ay soppi waaye tamit ab taxaw seetlu jëmale ko ci entreprise privée ba ci public yi su ko defee ñu xool nan la ñuy financer wàllu aar bi ba ci tamit caada ji marché bu jëm ci loolu tamit dinañ fexe ba. gën koo jox dayo cérémonie ouverture bi lee nekkoon itam occasion pour artistes yi yéeg ci kaw seen bi ñu daal di fësal seeni doléance ku ci mel ni waa orchestre Baobab di sakku audience ci Macky Sall artiste malien bi di Sidiki Diabaté moom la ma bëgg moo di ñu gëna bàyyi xel réewu Mali ak lu muy dund jamono yi Anna Rocha lauréat nouveau prix Ousmane Sow te di Abdoulaye bàyyee koo ca Kolda dina janoog taskatu xibaar yi tey dina ànd ak ñi bokk ci confédération bi boot société auteur compositeur ci biennale bile Dakar dina dalloo musée sous-marin mu nekk ca Océanium mission mooy sensibiliser ci sàmm alam gi ñu teelu directeur bi Rodouane El Ali. musée sous bi mooy benn zone bu ñu jël biir géej ci kanam océanium ci boobu tefes bi fu nuy stocké actuellement ay structure mooy structure bu jógee ci ay artistes européens ak sénégalais pour jël nit yi di leen bu biir géej pour ñu xool actuellement lu nu am ci biir géej bi pour recréer waat écosystème sous bi parce que ñu ngi liggéey ci protection de l'environnement soo xoolee géej bi tey rafet na ñu ngi période été dox bi day tàng day neex mais soo solee benn masque xool tu suuf mbalit moo fi nekk plastique ñoo fi nekk jën yu mag yi amatul lu bari donc ñu ngi xalaat suñu defee ba benn côté artistique dinañ toucher yeneen personne parce que vraiment suñu géej bi nag daa feebar actuellement waxtaan bi mu seq ak Anna Rocha daa ngeen ko teewlu nu mu gën a yaatoo ni ki ëllëg ci samedi gi Rodouane El Ali mooy doon ganu xalam jërë ngeen jëf mbokki grande journée Serigne Abdoulahi Mbacké borom dër bi bi am le 4 juin 2022 ca King Fahd Palace Hotel seen savon yi di créole ak déodorant Malaysia Umo ñoo leen di may li ci yéene kaay yi. dañ ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf massage bu Ousmane Sonko ba ak Adji Rabi Sarr ci la l'observateur xëy tey ubbil yéene bi fa ci yoon di justice toll la ñu xëy di xamal ba di ñu xamal ne keroog àllarba fukki fan ak juróom-ñett ak alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai doyen des juges Omar Maham na xale bu jigéen bi di Aïssata Ba ñu naan ko mama mooy naataangob Adji Sarr bi doon liggéey ak Adji ca salon Sweet Beauté doyen bi nee nañu déglu na it ji di Sidi Ahmed Mbaye ak jëkkëri Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi Ousmane Sonko doon dàmp impôt fa la Aïssata Ba bi ne xamul lu Adji daan séq ak yi nee na ko it li ne moom la daan def ak client yi moom Aïssata Ba musu faa yegg ak benn client ci audition ba waa ji di Sidi Ahmed Mbaye leeral na fa ne bi coow li jolle ba liy xew-xew ca lay soog a xamante ak Mamadou Mamour Diallo mi ñuy tudd ci wax ji waxi suite boote ba tey ci yéenekaay bii di lise ko journal bi dañu xamal li Sidi Mohamed Mbaye wax keroog moom Sidi Ahmed Mbaye musuta dëgg tànkam ci biir salon suite boote nee na xamul maître Dior Diagne du ci Adama du ci nee na it bi ñuy sàkku ndimbal ci organisation féminine yi ci réew mi te amuñu ko ci la ñuy soog a demee ci kii di Mamadou Mamour ngir mu jàppale leen journaliste ko tënk ci ay waxam ci ne Sidi Mohamed Mbaye dëggal na waxi Adji yi bu nuppi nag boole kook wekki mboolem tuuma yi ñu gàlloon ci aw ndoddam libération di ñu xamal yeneen ñaari mbir yu amaat ci dossier Sweet Beauté bi mi ngi ñuy xibaar it li avocat yi Ousmane Sonko yi di sàkku ci capitaine Seydina kaw député yi woon di Boubacar ñuy tudd ci coowal trafic sud du nee nañu Boubacar Biaye Mamadou Sall ak Sadio Dansokho yoon tëj na leen ñaari ati kaso yoo xam ne ñetti weere la ñuy tëdd kii di Diadji Condé moom ñaari at ràpp ci kaso bi la ñu ko tëj le vrai journal nañu député Biaye ak Sall révocation ak ñàkk ci mën a faloote dara ci réew mi moo leen di yot ak njublang ak i tappale di escroquerie ak abus de confiance leen di toppee bari na ci yéen kay ñu xëyandool yoo xam ne ku leen topp benn dëkk ñaari gaar di ca kees maire kees di docteur ci direct ci las ci réew mi quotidien ci Vox Populi ak ci les échos direct moom docteur Babacar Diop maire bu kees da doon conférence de presse démb fa la waxee ne dafay saisir justice ndax ñi ko jiitu ci maire bu kees ak ndaataata laxuk yàq gudul jeex la ñu fa def docteur Babacar Diop ne li koy firndeel moo di ci diggante 2020 jàpp 2021 liggéeykat yewoon ca maire bu kees jóge nañu ci 78 employés dem ba ci 116 employés masse salariale ba mu di liñ leen di fay jóge ci 187 millions dem ba ci 230 te bari na fa ñoo xam ne weer wu dee ñu dëngalu dem jëli seenub dara liggéeyuñu ko fa maanaam dañ leen di fay te defuñu tus réew na it 70 millions yoo xam ne nee nañu dañu koo dépensé ci carburant ca mairie ba ci diiru fukki weer la si ne kay bind ne docteur Babacar Diop sulli na mbóoti tàll si lay dolli ñu ci ne ab audit bu ñu def ca mairie bu kees moo feeñal jëf yu njuur yu bari yu fa ña fa newoon doon def convergence des cadres républicains CCR démb ba ñuy def seenu panel réew mi quotidien nee nañu raté wuñu benn yoon opposition bi ci réew mi te dëkkee wax ju ñaaw ak saaga ci seen kaw Abdoulaye Diouf Sarr ak ñoñam xamal Ousmane Sonko compagnie ne ñun dañuy jëf yéen nag wax rek ngeen man waxa leen dese wéy leen di wax dëgg ci la ñuy dox yéen ci manipulation ngeen di dox ñun ci république la ñu nekk yéen ci anarchie ngeen nekk comme nag da ngeen a jël anarchie gàddu ko ngar daajee ko ne du ngeen ko bokk ak kenn wéy leen ak seen anarchie jël leen seen anarchie fu ngeen xam jëm leen Abdoulaye Diouf ak yi ñooñam ne leen ñun ay résultat la ñuy jox askan wi yéen nag li ngeen xintewoo moo di ay vues yu bari ci réseaux sociaux yi waa convergence cadre républicain ne ñu mel ni ñun nawlawuñu leen woo naa leen ci page 7 bu l'observateur Diogo sur Mer ab dëkk la bu nekk ci ca kees journal bi nañu benn femme bu ñu naan njóobalay moo fa xuloo ak jëkkëram mere ja ba tax mu dem taal kër jëkkër ja ba lakkaale ca ñaari doomam yoo xam ne ca lakk ga la ñu faatoo grande journée Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi bi am le 4 juin 2022 ca King Fat Palace Hotel seen savon yi di créole ak déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jaajëf Modou Mouhamed Ndiaye mbokk jaa ngeen jëf waxtu ñu tànc fi koy yemale mu nekk